asalaamaaleykum mbokk yi déglu dal leen ak jàmm ci élection locale yi ñu dégmal ci ñaar fukki fan ak ñett ci weeru janvier bu atum 2022 xëccoo ak xeex bu tardé moom moo fi nar am cuulikaay bii di Sud Quotidien ne ci wàllu élection yooyu ñeme nemmeeku nañ ci nag ñetti ngandi maamu coalition bu ca njëkk mooy coalition benn Bokk Yaakaar ñaareel bi moom mooy coalition Yewwi Askan Wi beneen bi di coalition Wallu Askan Wi julikaay bii di Sud Quotidien di ci yokk tamit waa coalition Gëm Sa Bopp te kii di Bougane Gueye Dany jiite ko ak i ñoñom ñoom it bëgg nañu bokk ci langue bi ci nu mu waree léegi nag li des moom mooy xool ba xam ci diggante coalition yooyu kan moo ci nar a am ndam ci wàllu élection yi nga xam ne moom la ñu dëgmal en tout cas julikaay bi di Sud Quotidien la mu gis moom mooy nañu yi nekk ci bopp réew mi di waa coalition Benno Bokk Yaakaar ñoom ñoo ëpp nag fi mu nekk nii seen nit yoo xam ne ñoom ñoo nekk ci mairie bi te loolu moom avance bu ndaw la ci wàllu élection yi nga xam ne moom la ñu dëgmal ñoom kay li leen nar a yàqal moom mooy investiture yi nga xam ne moom la ñu dëgmal ndaxte bëri na ñu bokk ci biir coalition bi ku ci nekk daal di samp sa ndënd ci wàll gi ni mel sax dañ ciy jukki ba léegi ak colikaay bii di su Sud Quotidien ndaxte suñu naataango yi ñu ngi ñuy xamal ne ca mairie bu Ndias kii di Mamadou Dione daal di tamit daal dinay samp ndëndëm daal dinay xamle ne candidat la ngir war a mën a jiite commune boobu te it ma ngay wax képp ko xam ne da nga bëgg a yàq candidature am googu wala boog danga nga bëgg a indi ay jafe-jafe ci wàllu gi ni mel ne moom du ko nangu tey du ko nangu ëllëg ndaxte askan ba dëkkee foofu nga xam ne nag moom mooy ca Diass ñoom ci seen bopp ñoom ñoo ko investir fële nga xam ne moom mooy ca ginnaaw Rail Nord jolikaay bi di la mandat mi ngi ñee xamal ne Ndeye Ndiaye Tyson moom moo fa dal di samp ndëndëm élection locale ma nga tàmbalee fa li nga xam ne moom mooy ci diwaanu Ziguinchor foofu jolekaay bi di 24 heures mi ngi ñuy xamal ne ay nit yu faat ci ginnaaw Ousmane Sonko ak ñi faat ci ginnaaw Doudou Ka bu APR ñoom ñoo doon xeexoo démb jolekaay bi di direct news ne daal dinañ ci nemmeeku ñu bëri ñu ci am ay gaañu gaañu ci biir jolekaay bi di Vox Populi suñu naataango yi di ñu xamal ne am na ñeent ñu am ay gaañu gaañu ci waa Pastef ñi nga xam ne it ñoom ñoo faat ci ginnaaw Doudou Ka am na it ñu ci amee ay gaañu gaañu jolekaay bi di laas nekkoon na démb xeexoo gu metti moom moo amoon ci ngoon foofu nga xam ne nag moom mooy ci diwaanu Ziguinchor ci diggante ñu far ci ginnaaw Ousmane Sonko ginnaaw Doudou Ka te mu daal di nekk directeur général bu AIBDSA nee na bu ci takk der yi duggul woon mun na am sax làmbaay gën a ñaaw li am ba des ñi far ci ginnaaw Ousmane Sonko ñoom ña ngay joxoñ baaraamu tuuma ki nga xam ne nag moom mooy Doudou Ka jolikaay bi di l'info seq ci waxtaan sax ak Raphaël Bassène moom muy xamle ne léegi sax ñoom dañuy waajal seen bopp bu baax a baax ndax dootuñu nangooti kii nga xam ne nag moom mooy Doudou Ka ak ay nitam ñëw di leen xoqatal ak tamit di indi ay eh, jafe-jafe ñooñu nga xam ne nag ñoom ñoo fàtti ginnaaw Doudou eh, di daal di dàq tuuma yi nga xam ne la teg ci seen ndodd ñoom ñu daal di gis ne kii di Ousmane Sonko moom moo daal di yónni ay nervi li nga xam ne moom mooy ca këru Doudou nekk ca Bukot njàngale bi atum ren coolikaay bii de la témoin daal di nay njort ni suñu may moytuwulee dina bari ay grève yuñ ci nemmeeku ndaxte syndicat yi ñoom la ñu xamle moom mooy ne ubbi tey grève suba la ko waral moom mooy ne ñoom jafe yu bëri nga xam ne dañu koy yàgg di fësal ba léegi amul benn saafara boo xam ne daal di dañu ko ci indi rax ci dolli julikaay bi di la témoin mi ngi ñuy xamal ne ba ñu daal di recruter na ci lu tolloog juróom-ñetti junni enseignant yoo xam ne daal ak yoo xam ne ba léegi ñu nga leen di xaar avortement médicalisé tey jii julikaay bi di la soleil moo ñuy amal ab gëstu gu yaatu jëmale ko nag ci wàll gi ni mel ndaxte coow am na fi ci même réew ñii daal di ànd ci li ni mel ña sa des ànduñu ca raw rawatina nag ñi nga xam ne ñoom ñooy ëmbee rek nga daal di koy yàq culikaay bii di l'observateur moom di ñëwaat ci mbirum liir bi nga xam ne moom moo ñàkkoon bakkanam fa li nga xam ne moom mooy ca clinique de la Madeleine culikaay bii di l'observateur mi ngi ñuy ne procureur de la république daal dinay joxe dogal ngir ñu daal di arrêté ki jiite euh, clinique bi bi pédiatre bi infirmière bi ak tamit keneen ki ci dugal loxoom ñu jeexalee ko wàllu tàggat yaram record di ñëwaat a am tey jii ci benn waxtu ci diggante Namibie yi wax nañoo def seen kénte ay kàttan ci wàllu match boobu sat yéen kay diggée sa ne liggéey bi tàmbali woon nañu ko fii ci biir Sénégal léegi kay dañu koy jeexal fële nga xam ne mooy ca Soweto wàllu lamb ci li kay bii di suñu lamb moo ñuy xamal ne combat bi ñu doon xaar ci diggante Modou Lo ak Ama Baldé ñu jàppoon ko ci ñaar fukki fan ak atum 2021 daal dinañu koy dàq julikaay bii di sunu lamb duñu xamal ne combat boobu mun nañu ko taxawal ci weeru février wala boog mars bu atum 2022 lii moo nekkoon mbokk jullikat yi li gën a fës ci biir julikaay mesdames et messieurs bonjour les jeux sont ouverts au local du janvier prochain qui selon nos confrères de Sud Quotidien s'annonce épique entre les trois rivaux politiques d'hier en effet ce scrutin consacrera une prolongation de la conférence confrontation électorale qui avait opposé la coalition Benno Bokk Yakaar aux deux grands blocs de l'opposition formés d'un côté autour de Khalifa Sall et du Parti démocratique sénégalais de l'autre. L'inconnu, représenté par la coalition Gëm Bopp de Bougane Gueye Dany et compagnie, euh, sera en embuscade. Et maintenant, reste à savoir qui de Benno Bokk Yakaar, Wallu Sénégal et Yewwi Askan dictera sa loi. En tout cas, selon nos confrères de Sud Quotidien, aujourd'hui, la régime, une situation qui donne à Benno Bokuyakar une petite longueur d'avance sur ses deux principales concurrentes le janvier prochain. Et aujourd'hui donc, l'unique menace sur la route des camarades du président Macky reste sans nul doute les frustrés des investitures. En parlant d'investiture, retournons avec nos confrères de Sud Quotidien que Mamadou John, le directeur du COSEC, le Conseil sénégalais des charges de l'Alliance pour la République dans a

l'heure. Hier, du sang a coulé après un accrochage entre militants d'Ousmane Sonko et de Doudouka de l'APR. Des blessés, dont un poignardé, c'est le bilan de ces affrontements, nous disent nos confrères du journal Direct News. Et dans le journal Vox Populi, nos confrères nous parlent aussi de cette bagarre sanglante entre partisans de Doudouka et pro-Sonko. Quatre blessés du côté Pastef. Chez Doudouka également, on compte des victimes. Pour nos confrères du quotidien LAS, a été évité hier de soirée lors de la bataille échangés entre les militants du PASTEF et les partisans du directeur général de l'AIBD-SA, par ailleurs responsable politique de l'Alliance pour la République. Les deux camps se sont violemment affrontés et plusieurs blessés ont été dénombrés, mais le bilan aurait pu être lourd n'eût été l'intervention des forces de sécurité qui ont déclenché des tirs de sommation pour arrêter les accrochages. Chaque camp accuse l'autre d'être à l'origine de cette scène de tout cas car selon Raphaël Bassène membre du PASTEF à Ziguinchor les militants de PASTEF vont se préparer à ce qui va se passer car ce qui s'est passé hier à Ziguinchor est un avertissement il ajoute que Doudou Ka ne veut pas perdre les élections et il va créer toutes les situations pour éviter de perdre mais les partisans du DG de l'AIBD balaient d'un revers de les accusations portées contre leur leader eux aussi à leur accusent Ousmane Sonko et compagnie leur habitude d'énerver lourdement armés au domicile de Doudouka à Boucotte. Parlons à présent avec nos confrères du journal Le Témoin de la rentrée des classes sur fond de menaces des syndicats. Ubbi tey grève suba, c'est d'ailleurs le titre qui barre la une du quotidien Le Témoin et nos confrères d'ajouter que malgré le recrutement de 5000 enseignants, plus de 8000 instituteurs et professeurs manquent à l'appel. Nos confrères du quotidien Le Soleil nous proposent aujourd'hui tout un dossier sur euh, l'avortement médicalisé pour ou euh, de susciter des controverses ici au Sénégal où le débat a été posé depuis les années 70. Selon nos confrères euh, du quotidien Le Soleil, et une partie des Sénégalais soutiennent que l'interruption thérapeutique de la grossesse est contraire à nos pour la task force qui rappelle le protocole mille et une raisons de légaliser l'avortement médicalisé ici au Sénégal. Nos confrères nous parlent de 34 079 avortements euh, constatés en 2020. Et pour Dior Sofal, membre de la task force, elle porte ce combat par pur humanisme. Rebondissement dans l'affaire d'homicide involontaire du nouveau-né décédé samedi dernier à la clinique de la Madeleine. Le directeur de la clinique, le pédiatre, un infirmier et la nurse ont été placés en garde à vue sur ordre du procureur de la République. Leur sort se trouve désormais entre les mains de la justice, nous disent nos confrères du journal L'Observateur. Terminons par le sport et c'est pour parler de cette rencontre prévue à 13h entre la Namibie et le Sénégal. Pour nos confrères de record, les Lions devront batailler ferme pour le ticket au barrage. Pour nos confrères du quotidien du sport au stade, il faudra terminer le travail à Soweto. C'est tout à vos journaux